His Excellency ko avec governor e eh, mimɓe noon bangue union sefolu ipitielu alkalolu dina kuntelu ani jama rahmano mum e bellala momoɓe jang ako ay alkonto mangeni yay compini ay yay compinol konton mangeni yutti aɓe fondinguel konton na regional mobilité ak district mobilité yobmalena nuyu regional mobilité anin fanan district mobilité so mbiya e konton maa ngi nuyu ñoo xam ne ñoo am ñooy amee Gambia ëllëg mooy student. mais. maa ngi leen gërëm ci teeru bu rafet bi nga ma jox. président ko abal président abal président abal président waaye loolu jaaxaluma. bari woo aman jaagali. séntu naa ko. ah nan laa noo wóolale. parce que North Bank. kaatu North Bank region. ñaari électeurs yéen jël xam nga ah dina am na ñu la ñu leen suma yoon bi. man de la silo ti su man dama. ndu bi nge mbima watene tuma campagne aliya moyne num serum kabri kalisa ko nde campagne o kela te ɗuma campagne aɗo man nde campagne kela 22 years ako sañi mon anin fula ñinan yen gambe si solem hamudu basi yen sen affaire aɗo gambe ko namalo mimmote akas hono allah hajol maalena gërëm si ànda bu rafet bi buñ ànda bi diw baax yi ako mbaru dendila kal jeyi e mo kendo ndini ya lon ko ni wole le kafrin kata nyola sale kata ako karte fayo bumma fi tribalism man la fi sifatam fansi laje bumma fi fitna man la fi fitna laje kulleka Eno am nga right to sane kula me yela nyan dole dawoda dia de yela kafrin nyola Everything about and thereby. And in the mimbo da ba kilim fa kilim. yaw filan ne fom nga neka ite bulamin diyate ibe wole to saraka osama kubane la mon neka ikoto wole to ma fana min diyata e abe tawla wole to lolu warta haaj family wo ma nyanna fitno wala ka kalaro na timba to sane karta bi ako nyinka fe ni dimasi warona wala ko two years ago ñentami folanude ŋaafo sañi fulanto komantono wawona ko ti 2015 ko a attamo kono ŋaafo num an 2016 to ŋaafole aɗi fo an totu mujjeɗi tan wohonna ko kon man élection taw ma jog ako katte fayo a to wulita ba tawman malen jiite ɓayri ndere malla ñaafankoti man muslim la. te muslim moo hakam la tey. ma warga la pour ma teg ci al fu gën a baax. ndax waa ji moo dem pour ñu toll la ñaari robaay ko ngeen laajte lan la waxoon Brikama Ba 2015. asajini Karoke mu ne foto nu Brikama Ba 2015 sama kono. man lu ma wàddu dëñ mukk bu ne yàlla. te ni nga kumoo mi ko lu ka bàyyi mukk ni ala kontaan. soo leen bàyyi xel tamit gis ngeen ko. naal yàlla hakkilatu fanan aliyewondele. jamono bu ñu nekk nii. mais jamono min bii. nda APR su APR si nga. foo imu APR si la ci ban. li gën am solo mooy. min kummaa yaata wala mu. ñun yëpp nañu delloo si yàlla. Aliou Sow tey nga mën nga man ko Allah subhanahu kan. nañu yërëmante. Aliou nga bala faa su la ñëwee. nañu bëggante. nga ñëw kanu. Weź Timbalal. na ñooy maa koy. photo yi koy. laajuma la ko. mais. koo. su fekkee ne yow jullit xam nga. ni yaa bare tamit misimoo xakkan na ci. war nga xam ne. i ñanta won na le yow ni la yàlla bindee. ite ala yeete daa ñami. moo bindee joolaa bi. wala joolaa fanantaa. pël bi. fulee. mandinka bi. mandinko. wolof bi. surwa. ak séeréer yu ñaaw yëpp ñaaw. kon li ma leen bëgg a may. bi. ako ñu ngi kase fay naa la. yéen xam ngeen daa diggante. ñi gom yalla ak ñi gomani yalla minu tankene aɓe alala ani minu man tankene alala man yaya jame nte yaya jame yalola yakar moma sani tata lakkitomo alala sonde mari alala lawanailanna way sani karta di bari ñing karte faynala sa sa ñu ngi jonkon gidim repousse it ekati fitna loolu du am fii ako mais pour loolu ɓe fenko kadi santara ɓamɓeɓe pour ka sirno woni ndiga wonde kala so ɓeydene fitna ni a tara firngo male opatole suwa wey bi sa mole opatole hayyonomin tan walla sembo siyata won wartawol ɓayde kadi bare ñin gambia ɓanko will be the most peaceful country in the whole world if you look at kuleta vota fulani momo ilakkate ɗi momola min mbiyate campagne saga campagne o ka nandinorke jamdit heek ka ɓerotika ka kamolbu. ɗum duga sikkere jamu gawa fulanne ka ɗum wonde koɗɗa kono kuma filimbalo min mbiyate yaafo lolu ko ko def rek polisi ne ka nag boor boobu suñ la deful dara rek police dama ne naa daa am def léegi Nobody has a right to intimidate anybody. li yàlla wax. alay min fo. ñu ne loolu du am. i ko wote soto la. ñu seet la février 18 lañ ko fekkee. naa jiibee ko février 18 ñu amee gëlee man ma ko wa monsieur président ni weeri yalal yëpp halantenen ɓe ndamaga ñolo ɓiɗo liw yalawa ngane bugulo ko kaatu ala e min foyde koye man lafi wola ngane lo yow li nga buga lol mo am ah, ala e min keeto koye man lafi wola de koye ko wote inchallah seet len da ñooñ na bu kenn duga bopp sa bopp si fitna neyno nin saga neyno ya ning dëkk am na alkali saate o saate alkalo bi je dëkk boobu saate o nekk boo am na am ay ɓe chef o le koto mi yalon ko chef o fanan ɓe o kan am na région boo xam ne am na gouverneur o fanan banko kan gouverneur bi je so fekkee ne gouverneur si dara. alkaali bi mënu si dara. i alkaali mon fenno wonendiroɗo polisi mun na si dara police ole kuunojeele euh, gogono mun na si dara chef mun na si dara chef woni gogono fananse kuunojeele ka wotajo ɓay man jama laa bëgg. monsieur président Jammeh lafta kayrole la. maa suma karta yàlla moo ko amee. la carte be allahu taala li la man sama jéego suma yëpp sama jébalu si yàlla. monsieur Nakuo bee ngaadi daman so allahu taala la yotatuma campagne wala ɗum te campagne jala wawi yen bare alkolu moɗum comme ngen setal affaire yi o alkol se kuuroñin sénéyande yi d'accord ak yàlla minun sonta alala keerola ak ñoo xam ne yàlla mu ne lii la ñu ne déedéet du am aɗo minu ko ala ko ñinne ɓe kele ɗo ko hani ala soso ko wote gela ndesan ndesan ndesan ndesan yéen a ngi ree ma ngeen sumay waaye su doon ngeen xamoo li dama sumay doon ngeen sumay. an te jële la mbe muñ la bari naa ni yàlla lu min ko demu nga te jële la. nañu ragal yàlla. président ko nga sila nu alala. wa mana ragal yàlla ngeen ko famade maa foto ale ala sila ala le kan nooma ma wo fo waaye soo ragale yàlla li yàlla wallul nga def bari nii mu ala ñaa silen naa mooti ala ye min fo wala ala ye min keede sonna wala nañ xam ne ali ngaa na lu gën a important élection fen ne kumma ka tandi kante fayon muy yéen muy man fo al tolle mba wallante mu man kon lu ñu mun di def si taami élection woto se baara o baara walla kuuke élection o waato nañ def lu baali allah li yàlla buga ali nga kuuke mi yàlla ko ala la fito walla élega sibit ako sinin sama yoma kiyama moo gën a tànga de ah yoma lu ko bi jee wala candidat de te yàlla li lépp laa gis allahu taala ka beele jël yéen ñu bàyyi alfen moo kenn loolu bu ma ngeen dem Fulakunda man la fi akaleta Fulakunda te am ngeen Fulakunda te gara ki kala jeelonde on moye jogere en nan fof moye jahanam ako jeelem a de akkadamin fo liggen siñun moy ako min ɓeteya tan jolto wole mum nandega julit aliga ke misilmol ki min no ayatun baba julit tol minu kam fankumande misilmol la min no gana bañante yenen diine golle ŋañoo kon o kotoŋote mino ɓe diine koton to kula kana haalat ne momo ya lonko ka mira ko so taɗete ni e laabi ɓaɗanga teɗa yanni ɓe laala hawata lubba lubbal ñatanga ko def ak lubbon ñata lubbon ngay def nga haalat la mu nga de sikudigi ban ngay dem nañu haalat lool de yàlla ba pare foog ne jaaxaan la dañu toll jamono boo xam ne Nekot Halen, gone are the days when we say we are too, too young to pray. Now, you have a visa from Allah to tell you how long you are going to stay? No. Mm -hmm. Then, it is better to turn to the Almighty Allah. Uh, turn! Tear! hello, Tribalism! And you see for them first Sagante! Kanyoning! Sutu Sagante! Sakoka Kamobaning! Ang kasosa! Baning! Alfran Nulay! mu ne. alqurano ko. yow yaa benn hadis mu ne yow yaa saga kande. a ah, ko hadis to ɗo e ñile fof ite ite bamale la. li a ah, ko munatinna. soma sagende. niente bamane. dina feye ko. mben joole la de. ni kon duma doon sagande so tawii ne saguloo eh, eh, man de. ndiyata man ba ba nendiro ke ɗum. kon yéen da nga saga saya ñaari yoon. pourtant mulu nde ko ite ni yen ke ye bamale nene siña fula. lan moo ko jar. mu ne jarata wola ñin duniya kono. saɗane bantiyaɓo gase am ka mo banen walla ka a mum baraji le suka kono kono pula saga woto momo a nengi aɗañe ɗen si alkali wi a samba alkaloya gen ne police walla ya samba e dans leydi funede am nan mobile sa e fo mobile o ɓe mol ɓulu kula toon momo ye tooñe ɗum ko faale kana ɗankou because leydi mu nga heha moom yaatu ina se kelenoole mu daanu a ase boy jiyay e faa moom dem na ate taatala hajo yow nekkuloo fii nekkuloo fa itete jang ite jana because nañ la fii kaatu man sadee mudalale lan moo ko jan mu ne jarata wala then the law is there aɗum luwaɓe laarin jele moɓe affaire development. After Yiriwala Kola Banko Kanjan. Mandumago. Ateta Kola. So I'm not here to campaign. Mantarajan campaign, the Yoruba people campaign. It's up to you. If you want progress, you know what you want. If you want poverty, it will never happen. li ma lay yaagawaan yëpp. ñeeta ka min faale bee. jot na awaato siita. economic superpower ako banko nyingi yake banko sende mati kafu economic superpower inshallah to take president ko inshallah ate bayla mi ala kanta ndemo ko ndemo ko ninde drama le lom muko moy Bunda men be entol ni yuru a baga tango tema. Bunta bi nga xam ne nii moo nekk suñu diggante yokkute bu rëy. mooy élection bi. wala mu ñi kadde naa naala na bota je mu ne su élection boobu passé billahi wala taala dama ko politicien o de billahi moom du politicien nga men nga allah hindi men na lima leen daan dig economic super power mooy economic super power free education university education free education de university education free at least you know me mu ne ah lu mu bon bon fi mu ne xam ko Mutuma, did, did I ever promise you something I didn't fulfill? Ape kwani na Allah hindi bang ama anene mamingi lah mustari na dikara luma mustadef. One. Ako wodo. Did chief did. Yepo. Amna sefu wakfi. Apo na sefu di amuda jam alaji fabakan na na songo. Ah songo kundang solle. Ah wole. Chief. Apo sefu. Kana pisali. Mule bulchali. njete polo lo langa waya keje at electric man duma sampa pol def ci waya te la fay kuran du taka duma ay kana kisani mune fulen kalu ntata ko san tabiro mota kado mafila kisani esu tara to tane ke to tane nyote su da bulle ka gamu kan tali anyo min pol mune yelu anyo min ke ile nana allah indi fena make ndax mo fut bare ne na nga allah ne ma foko ni ala sonda ndax mos laa leen a dig te waxuma si ci yàlla andee nga foyle ko ni ala sonda andu ni ala sonda nga kele bi ko ni ala sonda ndemate ndem sikir walla bi andu ndemate sikir dama leen di wax ne si yàlla andee dinaa ko def si yàlla ne dama ko def gis ma ko def man dama nekk sikir walla te loolu duma ko def so kon ako woto campagne mu ne campagne We campaign for peace and security, not violence. ñu ngi campagne pour jàmm ak dal waaye nepp pour fitna. ku ba pare. ku a ako mo kam faato faabanta. te yow xam nga ne dafa mer. abe yàlla ko ñimbe kam faarinde. te si yooni dee la nekk. abe abe faa sinoo le kan. ah ala la mu sare kum fa no violence. fitna Tribalism is ungodly. si Especially you the young, young people. Si la pala sako funding You are the leaders. le If you are tribalist, you will go backwards. Look at ethnic violence in other countries. That is why I will not compromise on security and peace. Campaign peacefully. Ah, peacefully. Ah, we celebrate in grand style. And those who are going to cry, they cry in grand style. Lena labugan ngeen ngeen promise ma. Akon lafta alillahi di kili fen kili nala wala kini kili nala. Mooy. Wala mu. Not even campaign on no violence. One violence No violence. Fitna kana suko no violence. They want peace. And I will not compromise the peace and security of this country, irrespective of who is involved. My party has always been peaceful suñ parti bi de moom jàmma la ñoo doxee toujours la Cairo la parti la waat yoo waat. but for this election I want you to be more peaceful. waaye ci election bi dama bëgg a jàmma jooju gën a yokku ñi nga kàddee fay naa la la faa. because this one. ndax ñi nga kàddee bii di ñëw. di wa tubaaboo ka même foofu. mu ne di wax. the last nail on the coffin of African opposition. mooy li nga xam ne nii mooy daaj bu mujjee bi nga xam ne nii mooy mujjee ci kees yi nii nii opposition. bii mooy tilitan naano. bii mooy mu ngi saraki ñeent fukki fan yi. yàlla ñeent tilitan naano mooy. Sango Bantal. mu ne su ngeen déggee saraki ñeent fukki fan yi ñun xam ngeen ne dëgg ba jeex na. c'est-à-dire mu ne ñaar mu ne ñaar fukki at ak ñaar.

Violence is like a good fire. mu ne fitna de dafa mel ni daay eh, bu jóg ci. you can you can know where to set it. mu ne xam nga mun naa commencé mun ngaa xam fi moo commencé. but you will never know where it is going to end. daay gi fi moo jeexee ji kenn xamul ko fi moo mujjee. and I will not tolerate violence from whatever quarter. te fu mu mun ci jógee ak fu mu mun ci doon fitna du ma ko jëlal kenn ci réew mi. for the students. mu ne pour xale yi jànga school. kalamoto dini wolu i know most of you cannot vote for me xam naa ne yéen ñu bëri du ngeen ma mun a a ngaa la ko jabaabaatira a noo la ñee but I am satisfied with the clean heart that you have for me and I have clean out waaye kontaan naa kontaan naa ci téere bu rafet bu baax bi ngeen ma amal kontaan ta ale ngeen ye selmo min soxoñe you know I live for you and I die for you loolu laa taxawal te loolu laay dee. Gambian women. mu ne jigéenu réew mi ban koo musoolu. youth. mu ne funding jël ndaw ñi. you know I live for you I die for you. xam ngeen ne yéen a taxaw yéen laa taxawal te loolu laay dee loolu daal benn yaa du dem baal ak we cannot solve all the problems at the same time. mu ne jafe-jafe yi am yëpp ñu ko mun a saafara ci benn waxtu. kon yaa deux minutes kër yi daa baanu la waati jëlee. waaye soo leen waxee dëgg. bari naa leen tooñaa foo. dilengeno nate lolu lugoli denna kole ya ko de min ya lo ba nyaate no jama ba nga wondo da fale amara do ron to ya ko is part of the Gambia wone Gambia la nyim ma fo la jam and the entire phones ak phone gem ani phone banko from block to kalaji del kalaji that's 400 years of British rule never gave them a school. mu ne ñeenti téeméeri ati tubaab yi nekk fi mosu ñoo high school. so-called Mickey Mouse independence never gave them a school. mu ne fanweeri at ak benn boo xam ne high school yooyu. we all had to live. If you are going to high school, you have to go and stay with a guardian in in in uh, in Banjul or Lamen. So wale them high school la nga jalla dem uti njati ke Banjul wala Kombo ki pour mun sa xale mun fa janga. Now you don't have to do so. Your parents do not have to worry. Legi sen wajuri so la bin dolo Allah wulula bata wo bata bo te kanne. The only time you have to go to Congo is when you are going to university. But by 2018, by the grace of Allah, my promise would never fail. By 2019, 2019, we will have had at least seven colleges of the University of the Gambia in each of the universities. Inshallah, billahi wa la Inshallah, Now, it's up to you. Vote wherever you want. Allah is with me and I will win without him. And what I'm saying will come to pass.

because any violence. ngir fitna boo gis fitna wu fitna. any conflict. fitna bu munti am. would sow strong seeds of hatred for the next hundred years. li moo war dafa ji bañante boo xam ne dina dem ay téeméeri at. avec kon nag yàlla wulu la min si laa saji keme ñoom. We are better than that. We Gambians are better than that. We cannot live in a refugee camp. Who wants to see your mother running for her life and carry you on her back? If you don't want violence, that will not happen. Campaign peacefully. Vote peacefully. And celebrate in grand style. I wish you all the best. Hey, something happened. I have something for you. When the Minister of Basic Education will come and tell you. When the Minister of Basic Education will All the best. Hey, students. Students. Even though you cannot vote, I want you to pray. Not only for me, for the entire nation, for peace and progress. I love you all.